wa takfiran lildunub wa tadkiran linnaasi bilwuqufi lilxisaabi amaama allaami alguyub wa ashhadu an laa ilaha illa allahu waxdahu la sharika lah farada alxajja ala alqaadirina min cibaadihi faqaala tacaala walillahi ala annaasi xijju lbeyti man istataaca ilayhi sabila wa ashhadu an laa ilaha illa allahu waxdahu la sharika lah واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه خير من حج واعتمر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله فهو الزاد لمن اراد زادا قال تعالى wa tazawwadu fa inna xayra zaadi taqwa ayuha almuslimuun fi hadihi alayaami almubaarakati yastaciddu almuminuuna liltawajjuhi ila beyt illahi alxaraam li adaai ruknin min arkaani alislaam istijaabatan li amrihi li amri illahi subhanahu wa taala wa talbiyatan li nidaai xalilihi ibrahima alayhi salaam yaquulu tabaaraka wa taala wa addin fi nnaasi bilxajji yatuuka rijalan wa ala kulli daamirin yatiina min kulli fajjin amiq li yashhaduu manaafica lahum wa yadkuru sma allahi fi ayaamin macluumaat falxajju cibaad allah min afdali alacmaal qaala rasulu llahi sal allahu alayhi wa sallam thumma camalaani huma afdalu alacmaal illa man camila bimislihima xajjatun mabruuratun aw cumratun والحج المبرور هو الذي لا يخالطه شيء من الإثم وهو سبب من أسباب تكفير الذنوب ومحو القطايا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه فيرجع الحاج صافيا نقيا طاهرا من ذنوبه بإذن الله لأن الحج يهدم ما قبله من الشرور والأثام فعن ابن عمر بن العاص فعن عمر بن العاص رضي الله عنه قال لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلت أبسط يد يمينك فلأبايعك فبسط يمينه فقبضت يميني قال ما لك يا عمر قال قلت أردت أن أشترط قال أتشترط بماذا قلت أن يغفر لي قال sallallahu alayhi wa sallam ama alimta anna al islaama yahdimu maa qablah wa anna al hijrata yahdimu maa kaana qablaha wa anna al hajja yahdimu maa kaana qablah bokki jullit yi ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di tuubal borom bi di saku njëggalam di xam di di seede ne moom rek mooy buur te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy yonent bi mujj yónni ku bëgg a jaamooti jaamu yàlla gu ñu nangu faaw nga defe ko ci lim fi andi yàlla nu yàlla saxal ci njubam bokk yi dañoo bëgg a waxtaane tey tomb boo xam ne ginnaaw bi ñu jógee ci weeru koor wi loolu yëpp di wane rek sunu borom subhaanahu wa taala yërmande ji mu am ci jaam ñi ba lu ñu jógee ci loo xam ne aw yiw ci ñoom du du du xaaraat ba loola delsi waaye da cay toftale yeneen mu mel ni nag ginnaaw weeru koor ak ni mu rëyee ak li am solo li ci am lépp ñu ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu nangul nu mbooleen ñi nga xam ne itam ñoo ci doon def seen coono mu ñu ci def seen alal ñi ko doon dundal ci xam-xam ci alquran ak mboolem ñi nga xam ne ñoo ko doon def ci seen ñaq yàlla na yàlla borom bi barkeel leen te ku ne xam na ne barab bi bokk na ci barab yi nga xam ne ñu baree bari def nañ fi seen taxawaay ci ndigalu sëriñ bi waaye ci taxawaayu jëwriñ ji nga xam ne moom la fi yàlla teg ñu ñaanal ko yàlla moog ñi mu ànd ñëpp doon taxawu mbooloo mi ak liggéey bi suma borom nangul leen te barkeel leen te may leen guddal seeni fan te dolli wér gi ak xéewal yi bokk yi nag ma wax ne beneen tomb bi ci topp mooy lii ñuy wax aj fi ne nii jullit ñu bari ci réew yu bari ñi ngi waaj fas yéene dem aji ndax nag aj dafa bokk ci bonk yi nga xam ne moo téye diine ji sunu borom subhanahu wa taala moo waxoon yonentam Ibrahima alayhi salaam ne ko na woote nit ñi ñëw fekk la fii bu ko defee def jooxee li ñuy wax faratay aj bokk yi nag aj dafa bokk ci jëf yi gën a màgg bokk yi jëf yi gën a màgg yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi moo ko wax nee na am na ñaari jëf yoo xam ne bokk na ci yi gën ci jëf yi lu dul koo xam ne day def lu mel ni ñoom rek ku deful lu ñu mel ni ñoom mel na ni kay def loolu moo gën moo la gën jëf loola nag mooy aj wala mooy aj gu ñu nangu wala umra kon bokk yi aj gu ñu nangu nag mooy lan mooy loo xam ne bi nga koy def dara ci bàkkaar raxu ci raxoo ci dara ci bàkkaar bokk yi képp koo xam ne def nga aj gu mel noonu mën ngaa wax ne sa bàkkaar yi nga amoon yépp yàlla far na ko dafa mel ni dafa am ñetti féex yoo xam ne sunu borom daf koo indi yoo xam ne bu ci nekk lu mu fa fekkoon ci ay bàkkaar daf koy far benn ba mooy euh, mooy mooy koo xam ne dafa tuub dugg ci lislaam la jiitu ci ak dundam ci ay bàkkaar yépp sunu borom daf ko koy faral bi ko ñaareel mooy ban mooy ñi gàddaayoon dem ci jóge Madina jóge Makka dem Madina lu ñu amoon ci bàkkaar bu ñu ñëwee madi madina sunu borom daf leen koy faral beneen bi ci bi ko ñetteel mooy aj ku aj mbooleem loo defoon lu jiitu suma borom daf la koy faral loolu xadis la boo xam ne ab euh, Omar ibn al As moo ko nettali ne bi mu ñëwee ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam bëggoon a dugg ci lislaam daf ne dafa wax yonante bi sallallahu alayhi wa sallam sa loxo sa loxo ndey joor ma jaayante ak yow yonante bi tàllal moom mu daal di bankaat loxoom. yonent bi ne ko ah waaw lu tax ngay banque banque sa loxo mu ne ko waaw dama am ab sart boo xam ne dama bëgg nga bala maa dugg ci lislaam sart boobu mu ne ko mooy lan mu ne ko dama bëgg li ma defoon ci bàkkaar mu ñu baal ma ko yonent bi salaa salaam daal di koy leeral loolu ne ko nag ñett yii moom képp ku ko def rek lu mu fa fekkoon ci bàkkaar far na ko kon képp koo xam ne mën nga ko na góor góorgóorlu jéem a dem aji te ba comme ni ñu ko waxee mu doon aj goo xam ne dara ci bàkkaar du ca rax duñ ci dugal ay caaxaan duñ ci dugal lenn loo xam ne lu bokkut ak yàlla borom bi subhanahu wa taala ci ku ko man bokk yi nanu góorgóorlu gaaw a def farata yi dem aji ñu baree bari ci nun dañuy faral di wax ne dañuy xaar ba gën a doon mag door a dem aji léeg-léeg nga gis koo xam ne day am kàttan am alal yoon wi itam yomb ci moom waaye mu nekk di xaar rek naan day xaar ba gën a ba mag am na ñoo xam ne sax dañ koy layale ndax boog ma mën a bàyyi yeneen yenn yi nga xam ne maa ngi maa ngi ci te fekk na nit ki dafa war a gaaw tuub ndax xamul nag ba xam loolu ngay xaar ndax dana la fekkam déet ndax dana la fekk ginnaaw mënoo garanti ndax dana la fekk te am nga man-man bi gaawal jóg rek def ko loolu mooy ndax xamoo bakkan bi mën na ko fee bañ a fekk waaye wér gi itam man na ko fee bañ a fekk man-man bi itam mën na ko fee bañ a fekkati kon yooyu yëpp daa war a tax ba képp koo xam ne sunu borom def na la kàttan nga mën a dem aji bul ko waaj ndax day mel ni sax dem ci kàtt ak kàttan mooy tax nga gën a mën a dem jooxe ko ni waree ak la la ca war lépp ci xeeti jaamu yàlla ndax ànd na ak coono tuuti waaye bokk yi na ngeen xam ne nag aj dafa am solo lool ndax jan ajjana bi nga xam ne mun ñun ñëpp moom lañu bëgg aj da koy maye képp koo xam ne aj nga wala nga umra te yàlla rek tax nga gëm yàlla rek na la wóor ne lépp loo def ci diggante ñaari aj yi wala ñaari umra yi ku umra woon tey bu dee nga ne am yéene weer euh, weer wi ñëwaat nga dem umra jiwaan la defoon ci diggante boobu yëpp sunu borom daf ko daf la koy jéggal kon aj ak umra noonu la réyee kon koo xam ne yàlla mën loo na ko te fi ne nii toll nañ ci waxtoom képp goo xam ne yàlla mën loo na ko na nga daal di jóg taxaw fas yéene koo def waaye nag bokk yi ki bëgg a aji itam war naa am tuuti ay waajtaay yoo xam ne dana ko bàyyi xel bi ci jëkk mooy tuub ku bëgg a aji li nga war a jëkk a def mooy tuub ci mboolem say bakkaar yoo doon def lépp loo nekkoon te nga xam ne du woon aw yoon na nga fas yéene bala ngaa aji nga tàggoog loola te bañ caa dellu seeti bul dem ba noppi dellusiwaat ca ca loola di taqalaat sa sa sa sa sa sa sa bakkaar taqalaat sa bopp ci ay bakkaar ak sa bakkan kon ku am yéene aji na jiital tuub tuub mooy ñëpp xam nañ ko mooy lépp loo doon def ci ab safaan nga fas yéene dootoo ci dellu ba ca des mooy su yàlla dogalee mu am ñu bari ñoo tooñoon ñii nga jëloon seen alal ñii nga naxoon leen ku ci nekk na nga dem nga delloo ko la nga ko ameel koo tooñ jël alalam lekk alalam wala nga def loo xam ne du du lu jaar yoon sa digg ak nit ci ci alalam nanga dem nga delloo ko ko bu dee koo ameel ak itam nga dem jégglu ko bala ngaa dem ba ca tegee mooy su fekkee na nga am ay bor yoo xam ne xëy na bala ngaa ñëw da koo waroon a fay bor bor boo xam ne xëy na weer rek lañ la mayoon bor bu mel noonu bala ngaa dem na ko na ko fay ba ca degee mooy sa waa kër bu leen dem rek wàcce leen noonu waaye nanga xam ne sa dund ci ñoom yow la war te bala ngaa dem nanga ko lijjanti ba nga xam ne doo leen fi bàyyee ak jaaxle ak tumuranke bi ko beneen bi ci des mooy lii lépp nag booy waaj nanga ko waaje alal ju lew ku dem ci alal joo xam ne lewut na xam ne yàlla moom du nangu lu dul lu teey la wax yàlla nee na du nangu lu dul lu teey kon nag képp koo xam ne bëgg ngaa dem màkka na nga fexe ba am alal ju lew nga demee ko makka waaye nag bokk yi ku bëgg a aji na ànd ak àndandoo yu baax yu am yitte yu am pas-pas yoo xam ne dañ lay soññi soo demee bu bëgg a nelaw wala nga tàyyal sax ñu soññi la léeg-léeg mën ngaa nekk ak ñoo xam ne waxtaan waa dugg ca yeneen yu dul yooyu soo moytuwul mooy gën a not ci seen dund te da jóge fii ak li nga sa alal sa coono sa lépp bàyyi sa njaboot dem kon na nga fexe ba boo àggee li ëpp ci sa dund foofa na nekk tudd yàlla jaamu yàlla ak sellal ko rawatina nag sori yëpp yoo xam ne mooy waxtaane mbiri ñeneen yi kon loolu itam euh, la la koy may nag mooy nga ànd ak ñu baax dégg dangeen fi dégg ginnaaw ginnaaw bi nga xamee ne Sëriñ Tuubaa amoon na yéene yi aji ba ñëpp xam ko waaye mu amoon gàllankoor yoo xam ne bind na ko ci téeréem fu mu nekk di wax cofeelam ci yonent bi bëgg faa dem euh, kenn xamul lim yi nga xam ne wala bayit yi nga xam ne ëmb na cofeel googu nga xam ne diggam ak bi la ak ziyaara ji euh, kaaba gi waaye mu am gàllankoor te ñëpp xam nañ ko mooy mayuñ ko sax fa mu dëkk mu génn ko dem ci beneen dëkk waxuma la ak di ko may muy dem ci beneen réew waaye mu amoon loolu nag des ci xolom lool waaye sunu borom defal na ko tawféex yi bari na ay taalibe yoo xam ne ñu ngi koy ajal di ko umraal waaye bari na ay njabootam yoo xam ne ajal nañ ko umraal ko kon mu mel ni loola jural na ko ay tuyaaba yoo xam ne du dakk ba faw ndax bëgg gëm ko bëggoon waaye ak na ko yàlla joxe ay tuyaabaam ca fa mu ko jaare moom suñu borom moom mi xariñ mi kon ma wax ne nag suñ leen waxee ba mu fi jógee mbooloo ma njëkkoon a dem aji gis ngeen ñëpp xam nañ leen muy mbooloo mu baax nit ñu yiw góor yàlla yoo xam ne ñoo ànd na ku ci ne da ngay soññ sa moroom mu mbooloo mu mel noonu nag moo mat di àndal ndax mooy ñi nga xam ne kon kuy waaj di dem na nga fexe ba ñi ngay àndal nga tànn ca ñoo xam ne soo àggee ñoom ngay def wéttal ñoom ngay def ay ay moroom ñoom ngay def ay naw la ci ndax seen pas-pas ak seen seen yéene te bañ a ànd ca ña nga xam ne xëy na day mel ni suñ ko sañee wax day ñuru ne turisme rek la gën a nekk ci ci ci ci ci jaamu yàlla ñu bañ koo bàyyi xel ñu bàyyi ko xel bu baax bokk yi bokk na ci yi nga xam ne itam kii dem aj yi war na koo bàyyi xel mooy lépp lu aju ci attey aj bala moo dem na ko jàng xam ko xam fu ta aj tàmbali ak fu mu yem loo sañ def ak loo sañut a def loolu soo ko laajee ci làkk bi nga xam ne moom nga dégg soxlawul ñu di la ko tekkil ci arab wala leneen waaye nañ la ko tënkal ci làkk bi nga dégg rek nga xam ko bu baax ba xam li ngay def ak li nga sañu te def loolu jàpp naa ne bokk na ci yi nga xam ne euh, ab jullit bala moo dem aji kon ñu ngi ñaanal ñëpp ñi nga xam ne am nañ pas pasu aji yàlla yóbbu leen ci jàmm delloosi leen seen jaboot te leen te ñi xam ne am nañu yéene te yàlla jàppandalu ko itam yàlla na ko sunu borom jàppandal ci at yi ñu jëm ba képp ku am yéene dem mu dem aji ndax aj rëyaay bi nga xam ne moom la rëy ñëpp xam nañ ko yàlla na yàlla saxal njub saxal nu ci njub yàlla gindinu yàlla may nu tawféex yi lépp lu ñuy def ci jàmm yàlla mu nangu ko waaye sax sunu kilifa yi nga xam ne moo nekk ci sunu kanam itam te Cheikh Mouhamadoul Mountakha nekk ci kanamam nekk ci euh, yàlla na ko sunu borom gën a dolli wér gën koo dolli tawféex mboolem ñi taxaw diine itam sunu borom taxawu leen dimbale leen ba liggéey ba nga xam ne moom la ñuy liggéeyal diine ca fa ñu nekk. sunu borom nangu ko te jàpp jàppandal leen ci te may leen ci tawfiq yàlla na ko sunu borom def ñuy fàttaliku itam ci ci bu ñuy waxtaanee aj am na ci sëti sëriñ Tuubaa yi koo xam ne ku amoon yéene ci mbirum aj la te bokk na ci ñi nga xam ne ñoo am ñoo ñoo taxawal barab bii muy Cheikh Sidi Muxtaar bu aj masaa ñëw xel yépp dem ci moom ndax bëgg gi mu xam xam gi mu xamoon ne bëgg bëggu sëriñ Tuubaa la ba tax na da ciy def alalam ju bari ngir yóbbu ñu bari loolu nag yàlla ko yàlla fay fa mu nekk te yàlla saxal na ci njub alhamdulilahi rabbil alamin wa ashhadu an laa ilaha illa allahu waxdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayidana muhammadan abdullahi wa rasuluh fa allahuma salli wa sallim wa barik alayh wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin fa baadiru ibadallahi bi adaa'i ma farada allahu alaykum min alhajji ila baytihi alharam wagtanimu sixatakum qabla saqamikum wa ginaakum qabla faqrikum wa xayaatakum qabla mawtikum wa taajjalu bilhajj fa inna al insana la yadri ma yaaridu lahu wa alamu anna al jannata min azami al jaza liman xajja wa atamar imanan wa ixtisaaba lima qaalahu rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al umratu ila al umrati kafaratun lima baynahuma wal xajjul mabruur laysa lahu jazaun ila al janna ayyuha al muminuun ينبغي لمريد الحج أن يبدأ بالتوبة بعد الإخلاص لله عند قصد الحج وأن يرد المظالم إلى أهلها وأن يسارع إلى قضاء الديون العاجلة wa an yaquuma bi idaadi wa tawfiri nafaqa liman talzamuhu nafaqatuhum wa an yataxarra almaal alxalaal li ann allaha tayibun laa yaqbalu illa tayiba wa yajibu ala alxaaj an yattaqisa li nafsihi rufqatan saalixa muhibatan lilxayr wa an yataallama axkaama alxaj wa maa yaxilu wa maa yaxrum xatta laa yaqaa fi maxduraati alxaj allahuma salli wa sallim wa baarik ala sayidina muhammad wa ala alihi wa saxbihi wa ajmac illahu ummatana ala alsadaati walxayr allahuma aslix diinana alladi huwa ismatu amrina wa dunyaana alladi fiha macaashuna wa aslix axiratana allati fiha macaaduna wajxal ilayaata siyaadatan lana fi kulli xayr allahuma ixfir lilmuminina walmuminat walmuslimina walmuslimat alaxyaai minhum walamwaat yaa arxama arrahimin allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatix lima uxliq walxaatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم